ausubillahi mina seytaani rajim yi bisimilahi rahmaani rahim yi ñu sant yàlla julli ci sangu sang yi Seydina Muhammad sant suñu ñaare waajur sant suñu wasila Cheikhul di leen nuyu baax di leen ziyaare ñi nga xam ne saa su ne yéen baaxoo toog fii ci waaru TV nekk waaru Xaadimu Rasuul waaru di leen nuyu baax di leen ziyaare di cër bi nag suñu kilifa Serigne Mountakha Bachir yàlla yàlla yàggal lool te wéral li cërëm di nuyu di ziyaare Serigne Cheikh Jëmb Fall yàlla na fi yàlla yàggal lool Fall te wéral li cërëm di nuyu mboolem kilifa diine wala kilifa aada bu nekk fii ci département bi ñu ngi leen nuyu baax di la ziare. di jaal eh, suñu kilifa suñu baay suñu lépp muy sëñ Bassirou Fall alxuraan ñu ngi koy jaal kullu Baye Fall eh, di ko jaal sëriñ Mountakha Bachir di ko jaal juddit yëpp ndax sañ Bassirou Fall alxuraan eh, juddit yëpp ñoo ko ñàkk nit ku baax nit ku daan dunde alxuraan te di ko dundal. nit ko doon dundal maam Cheikh Rafal te di ko dundee doog ko surtout maam Cheikh Rafal nekkoon nit koo xam ne kenn la woon ci yoonu murit ñu ñàkkati jenn jàmbaar ma koy jaar ab sëtam Mamor Seck di ko jaar Soxna Ndey Fall ak sëñ Gunda ak mboolem koo xam ne yaa ngi bokk ci njaboot gi ko màggal gi teral nañ ñu lool wax dëgg yàlla ñu koy jaar ndax yàlla lu ko neex rek lay def ñi ci bërëbu hôpital yi ma fekk leen fa ñaanal leen suñu borom mu fëgg seen bopp a delluwaat ñi nga xam ne tamit ñu ngi ci ba yóbbu yarukaay yi ñu leen di ñaanal suñu borom yàlla ñu jóge ci foofu ñu dugg jumba dugg faat yàlla boofu dugg di leen nuyu yéen ñëpp di leen jaar di leen baal ak yéen ñi nga xam ne saa su rek yéenay toog di ñu seetaan di jaar soxla maam bu sa jeen wax dëgg yàlla suñu doom jooju ñu bokk métti na lool waaye yàlla bu soxlaa ku soxla ñàkk nanu yàlla may xolum muñ rek ten muñ loo ko yàlla te da ci des si njaboot bi mu ki loxoom ban mën a fekk njëriñ ci barke Cheikhul Khadim nuyu leen ziare leen yéen a ngi ci émission jotaay bi ci am fii ci seen émission seen télévision Waarwi TV nekk télé askan wi seen yitte mooy dañuy ci li ñuy dox. ma ñu dalal fi nag euh, kuréel gu am solo goo xam ne annonce bi gis nañ ko wax dëgg yàlla maa ngi doon jot ay message ku nekk naan naka laay def ba bokk accès tey nag day leer ma am fii ñaari jigéen ñoo xam ne ci gaynde accès lan bokk bokk ci jàmbaari Touba ma bàyyi sunu yaay mu nuyoo daan ko jëf bisimilah nuyu nañ la ziare salaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatu ma soxna maam Diarra maa ngi nuyu. Mm-hmm. di nuyu soxna maam Bousso sama doom yi bopp yéen ñaar ñëpp samay doom yëpp. di nuyu ma fi fekk yëpp. di mu yàgg fi lool te wér njabootu Sëriñ Touba gi yëpp ak Jëmb Fall yàlla ko fi yàlla yàgg te wéral ko dellu jaale waajur bi nga xam ne moo fi jóge sëñ Bassirou Fall alxuraan yal na yàlla jabar sàq taas ñu ci barkeem yal na ko alxuraanu karim teddu di jaalee Bali Dieng ak soxna maa awa baabu mi nga xam ne moom sunu ànd la woon ba nuy ay xale yàlla jëlee ko fi démb moom tam yal ko yàlla xaree àjjana di nuyu waa ak sa yëpp ñu nuyu nag ki nga xam ne mooy kilifa bu mag gi ah di docteur Amadou Ndiaye ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di nuyu ñëpp nag di ziar ñëpp. jërëjëf Tall Gass nuyoo bi am na solo ma dikk sama beneen côté fekk fii sama dooyu baay ñu bokk tooma soxna jaara Mame Bousso mën nañu la ziyaare la waaw salaamaaleykum mu ngi nuyu ñi nga xam ne ñoo nekk ñëpp ci Sénégal yëpp di leen nuyu di leen jaajëfal te di leen tatagal di nuyu ki nga xam ne nii mooy suñu dund tey ci Serigne Touba muy sëñ Mountakha Bassirou ñu ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla may ko fan ak wér gi yaram dund cent ans sans ordonnance di ñaanal yàlla ki nga xam ne nii mooy sëñ Seex Jëmb Fall waaw gudd fan ak wér gi yaram di ñaanal uh, ki nga ñi nga xam ne suñu way dawlu yi yàlla na leen yàlla yërëm te xaare leen ca àjjana yi gën a kawe di ci jaale ki nga xam ne mooy sëñ Basiru Fall alxuraan kooku xel war naa dal ci moom ndax alxuraan kuñ ko dàkkantale rek sa xel war naa dal ñuy jaale ki nga xam ne mooy Baali Dieng tamit moom tamit kii mu ñàkk wax dëgg yàlla metti na loolu waaye nag yàlla bu soxlaa ku ku soxla ku nekk ñaan ñàkk di ñaan yàlla yàlla may ñu ñu yàgg a fekke ay déwéni déwén su nëgëni déwén na may naqar yàlla na mel ne nëgëni ren yàlla buñ ko gisati muy mbas mi ñoo ngi ñaan yàlla yàlla buñ ko gisati daraje Cheikhul Khadim jërëjëf soxna Mame Bousso ñu ngi ci yow la ñuy dellusiwaat lan mooy accès waaw soxna jaara man soo ma laajee lan mooy accès moom daneen ci sawar te daneen ci mën a tontu ndax accès mooy kuréel gi nga xam ne nii dafa sampu sampu juddoo nag fu ñuy wax keeskaay yàlla dogal bi mu juddoo keeskaay di law di law di law ba dem mbuur dem fi nga xam ne mooy ngaay wàcc si fi nga xam ne mooy Touba ndax kenn ku nekk fa nga dëkk moom nga am moom ngay sagoo moom ngay tiitaroo ndax man waa Touba laa Touba laa juddoo yaroo fi am ci fierté lool fu ma demit dama koy wone wane loolu moo dogal yàlla dogal man bi ma demee gees ñu tàggat ñu ci accès accès nag bi ñu docteur di tàggat ki ñu ci mooy docteur Pape Amadou Ndiaye docteur Pape Amadou Ndiaye bi ñu ciy tàggat ñu ñu tàggat ci tey jii man tey daanaa am sama fukk aw ma nu ma xaw ma xaw ma defe na woon naa ne 100 francs ku ko yor wala juróom fukk dangaa war a xëy rek taal ko mu jeex mu ñëw tàggat ñu ci maanaam yaxanal mooy tey jii man bëgg na maa àgg ci dara mënu ma cee àgg tey lëkkaloo naa ak sama yeneen moroom naataango yoo xam ne ñoo bokk ngëm-ngëm bokk lu ñu bëgg tey jii loolu ma bëggoon a àgg incha allah bi dinaa ci àgg hmm. kon accès loolu la signifié mooy tey jii sa àdduna li nga bëgg a yegg tey jii nga ànd ak say nawle bala nga bëgg àgg incha allah bi yàlla suñu borom teg la loxo nga nga àgg ci ndax dañ ne boo boolee ay bant yu bari boo ca demee benn du ca wàññi dara waaye bu fekkee dangaa bëgg a demandoo euh, bant yëpp day daal di kon accès mooy kuréel gi nga xam ne nii ab say la boo xam ne nii day dëgëral day dëgëral sa taxawaay fii ci àdduna ak euh, di ko ñu ciy dox tamit doxin bu sell loolu mooy accès. naka nga koy farañ fàccee ba nit ñi ndax boo waxee naka ngay farañ fàccee nit ki ba mu mën a defar àddunaam. Mm. naka la koy defee. day jaay xorom wala lu muy jaay. waa accès dañuy ñëw bu ñu ñëwee dafa am ay yu ñuy lay jaay carnet de membre carnet yi sax xam naa dama xool sama saag sànq gisuma dama dama ko naroon a wane ñu xàmme lan mooy suñu légu dafa am ay carnet yu ngooy adhéré carnet yaa ngi koy adhéré 1400 boo adhéré carnet bi cent membre yi mën naa dem ba nekk cinquante wala mu nekk 100 yooyu yëpp tey jii kenn ku ci nekk boo ñëwee da ngay def juróom fukk juróom fukk ñu di ko accès am lu ñuy wax solidarité solidarité 100 francs 100 francs lay doon cent franc cent franc yooyu ak juróom fukk juróom fukk yi bu ñu ñëwee nag léegi elio ko yow tey jii man ma ñëw soxla su ma soxlaa cent mille damay ñëw ci biir kees gi lépp cent mille hmm. su ma soxlaa deux cent mille damay ñëw ci biir kees gi lépp deux cent mille hmm. su année bi jeexee dañuy ñëw jox ma sama xaalis jox ma sama bénéfice ba cay tege te bu boobaa kenn du gaañ kenn ndax kenn du xamal sa moroom lenn su ma doon commerce tey gi sama commerce yemoon ci fukki junni hmm. sama commerce dina na ko yokkal ba cent mille kon déjà man yoon yu ma bëgg a yoon yu ma bëgg a jaar ñi ngi ma fay jaarale hmm. di ma yóbbu ci ci ci koom-koom soxla hmm. soxna Mame Bousso ñu jëkk ci suñu ñeneen yaay ji yow nga nekk Touba euh, lan moo la motivé ba nga bokk accès ah, li ma motivé ba ma nekk maa ngi ñaanal soxna ndey Diouf yal na ko yàlla yërëm. amiin amiin ndax ba ñuy am accès kat boobu moo nekkoon présidente après 28 ma toog mhm. ci moom. Mhm. ñu ànd ko kuréel gu bari macha allah ñëpp di femme développement yàlla boole ñu. Mhm. Euh, ñu dem ci benn réunion ci docteur la maa fa njëkk a jël kàddu ba ñuy wax ci ku ñu yóbbu banque may leen man de su ma sañoon yóbbu ñu ci ñetti caabi. ndax bu ñu yóbboo ci ñetti caabi su ma amee sama fukk denc ko fa. su ma amee sama ñaar fukk denc ko fa su ko sama morom amee def ko loolu moo ñu gën a yóbbu ci développement ci banque parce que bu ñu yóbboo ci banque bi li ñu banque di dagg ci intérêt ak li nga xam ne moom lañu fay ñàkk ak garante yi ñu fay am foog naa hmm. ñu accès suñu bopp am suñu yëfi bopp moo ñu gënal comme ni ko maam bu sa waxee hmm. ndax bu fekkee dangaa indi téeméer ma indi téeméer keneen indi téeméer ñu dajale hmm. yow soxla nga ñaar fukki junni dañ lay lebal ñaar fukki junni nga dem liggéey hmm. su weer bi dee nga indi bénéfice bi teg sa ñaar fukki junni hmm. suñu ba am fukki ak ñaar fukki weer ak ñaar buñ ci eggee ñu ko li nga xam ne ñu ko ko laal ak loolu xanaa ay frais yi di génn mooy frais yi su ko defee xaas boobu dañ ko toj séddoo ko buñ ko séddoo tey ñoo dem résidel soir wala waaw mhm. continuer mhm. man mi nga xam ne damaa soxla woon ci màggalu Tuubaa ñeent fukki junni mhm. masalan ñu toj kees bu ma am ci juróom fukki junni am naa chance boroom kër gi nga xam ne ah, daa dëkk ci bi baa mu dëkk ci biir kër gi ah, ñuy accès mu am droit yi denc ci carnet ginnaaw carnet di fa dénkaane ginnaaw carnet boobu jural na jigéen ñi nga xam ne ñooy borom kees gi njariñ ndax ki fi dénkaane téeméeri junni te moom lebu ci liggéeyu ci ku ne xam na ne Euh, dimbali na jigéen ña mm-hmm. su màggal jotee ngay borom kër nga am ci keesu ak sa téeméeri junni defe naa loo ci dool di nga am sa dépense su màggal mm-hmm. ak sa moom ah luy suqali doomu aadama la luy yóbbu doomu aadama ca kanam la su xamee ca nam koy defee mm-hmm. ànd bokk nday bokk bàyyi nag di xàccandoo di dóorandoo ah suñu borom di ñu dimbali ñuy dajale suñu tuur rek li ah, ci faj suñuy soxla kenn lewetul fenn na ndax bu kees gi nekkee ci biir kër gi yàlla dogal yow nga am soxla si ñaari junni mu teew wala sa doom feebar dañuy ubbi lebal la ci solidarité wala ñu dem lebal la nga dem jënd sa ordonnance boo amee facture courant amoo loo ko fayee. Mm-hmm. dañ la koy lebal. Mm-hmm. nga dem fay ji ko. kon mm-hmm. foofu kenn ku ne ki accès yir na la mbalaanum sutura. ci tubaa yàlla dogal nag di ndamu waar wi ndax ñoom biñ dalee ànd ak ñoom ñun yàgg na. tey boolewuñu ak ñoom yàgg na ndax ku gis uh, ni ñu nekk ak ñoom dana la xaw a jaaxal waaye danoo yàgg ak accès wax dëgg yàlla lépp lu ñuy liggéey di ci boole Soxna Jaara di ci boole Waarwi TV di ma fekk rajo di ma fekk fu nekk moo loon tey nag ñu def jàngat bi ci Pape Amadou Ndiaye kon nag euh, Sénégal sunu ministre ngoogu ndax secteur informel bi mu yore ñi nekk secteur informel yëpp xam nañ ko rawatina ñun ñun ñi nga xam ne dañuy liggéey ndax ki daan jàppale nit kii te doona goo ministre jàpp nañ ne boo doona ministre ñu jàppale maam bu soo lii leen indi woon ci Pape Amadou Fall ñu tuuti ci Pape Amadou Fall ñu a continuer émission bi Pape Amadou Ndiaye rek laay wax waaw soxna Diarra waa loolu ñun boo ci laajee dinañ ci sawar ndax Pape Amadou Ndiaye tey bi ñu ko joxee ministère bi ko jox président Macky Sall juumut daa xam nit ki lu mu jox ko ko xam nit ki lu mu xam mu di mu jox ko ko ndax yaakaar naa bu defoon lii ci senegal avant kon tey jii réew mi passé na romb na fii hmm. mu toll xëy na sax li mu fi defoon baax na wante nag téewul lii nga xam ne ni tey moom la defaat bu ci kanamee dina xam ne li mu def nii moo gën avant ndax nit ki nga xam ne nii da daan ñëw di jël alalam di ko tàggate ay jigéen di jël alalam di ci ubbi ay plateforme di jël alalam di ko def ci ay clinique di jël alalam maanaam secteur boobu li mu laal moo bari ndax tey bu dee ci santé la docteur Pape Amadou. am na ko ne ci bu mu jokkoo ñu jël dellusiwaat ci émission bi euh, salaamaaleykum mbokk bisimilah. yokk ñu tuuti bas ñu déggante ak moom salaamaaleykum mel ni kooku rëcc na bas danga ñuy yokkal tuuti ñu dégganteek moom. nga dugal affiché affiché numéro bi képp koo xam ne bëgg nga bokk nga a xam njariñu accès ci numéro boobu ngay jaar ñu waxtaanee kon ne soxna Mame Bousso. waaw docteur Pape Amadou Ndiaye ni dafa social. Mhm. dafa nekk nit koo xam ne nii tamit. dafa dafa dafa oyof. Mhm. dafa nekk koo xam ne yi dañ koy soxla. parce que ku mel ne moom lañ soxla mooy ki nga xam ne soxlawul alalu askan bi. Mhm. ndax man xam naa ci dara. li ma ko wax ne ko su ma la séedee sa sa su ma la séedee ci say jëf. yaakaar naa ne loolu suñ borom dina ko nangu te lépp lu ñuy wax lu nekk rek nañ xalaat ne dinañ laloo suñu loxo ndeyjoor bi hmm. kon ñu xam ne bàmmeel tamit mi ngi ci suñ kanam lu waaye di wax rek na ko leer hmm. kon ñun li ñuy wax nii dañoo leer mu nekk loo xam dañ cee teg suñu bët docteur Pape Amadou Ndiaye ba ma daree ànd ak moom nag euh, naa ne la 2000 2008 la presque 2008 la ci 2009 bi ñu ñëw ñuy ànd nekk nag ay femmes yoo xam ne nii xamuñu woon dara mënuñu woon dara. docteur de développement. femme de développement boo ko am na ko ñu ci bu mu jokkoo gi jël ko mbokk bisimilah salaamaaleykum. waaw. Mhm. waaw loolu moom moo ñu may permettre tey jii ba moom ci xam-xamam. ndax lii nii dama ko daan wax ne ko chaque jour ñun dañ laa war a fay docteur dafa am luñ ko ameel jukkal ñu ko ameel hmm. jukkal loolu nag moom dafa dellu si waat jukkal lépp jël ko teg ko ci loxo askan bi ndax ni mu ko tegee ci loxo askan bi mooy xam-xamam la indi xam-xam bi indi daf koo jàngi bi mu ko jàngee tamit yàlla dimbali ko ci jàppale ko ci hmm. ba loolu mu jàng ba mu ñëwee da koo sottiwaat ci askan bi defal ñu ko gratuite hmm. gratuite mooy tey jii lan la mooy liggéey bi ñuy liggéey tey jii ba mënal ci suñu bopp moom da koo demoon jàngi yàlla dogal na ne bi mu ñëwee teguñu si benn benn coono newuñu lii ngeen may fay newuñu lii ngeen ñuy defal. Mm-hmm. mooy lu di jël alalam di ko ci investiraat di jël ay million ak ay centaine de million yoo xam ne ni da koy def ci biir jigéen ñi jël ay centaine de millions yoo xam ne ni da koy def ci li nga xam ne mooy clinique yi li nga xam ne tamit mooy hôpital yi nga xam ne dañoo xaw a am ak am na ci yoo xam ne dugal na ci seen loxo ndax am na ñoo xam ne ni seen maternité baaxuloon tey moo defar maternité ba fu ci mel ne kër maam fee Madina Fall seen maternité ba tey ji moom moo ko defar ay sëg yoo xam ne moom moo ko defar boo demee prison Thiès ba tey ji nga xam ne nga xam ne docteur Ndiaye nga xam ne benn genre nit la boo xam ne ni dafa bëgg askan bi ba topp ci ñi nga xam ne prisonniers yi lan nga xam ne nit ñi sax bàyyiwuñ leen xel mm-hmm. chaque année dafa am na muy def ñoom ba mat bu kees boo demee di nga fekk benn euh, benn néeg boo xam ne nii moom lañ bind ca kaw tudde ko ko te loolu yaakaar naa Mame Bousso nga may ñu tuuti ñu dem rési dellu siwaat daa mel ni am tuuti problème mu rési sëñ Bass ñu dellu rési dellu siwaat nga dugalaat élément boobu ñu xool jenn jàmbaar a ngi nii jenn jàmbaar joo xam ne ci liggéeykat yi Sénégal la bokk ñu koy wax Pape Amadou Fall Pape Amadou Fall mu ngi juddu le 14 décembre 1961 à Dakar jàng fii ci réew mi jóge fi am bourse de bitim réew jàng ba mu deltee jàng médecine xam-xam bi ko yàlla may mu ñëw ne dama koy investir fi ci sama réew muy Sénégal ndax Pape Amadou Fall bëggam Sénégal ñëpp ko xam fii ci Sénégal nekk ak kees jigéen ñi nga xam ne dañ daan am jafe-jafe ngir am doom ñu di am Papa Amadou Ndiaye di koo xamante ne dañuy liggéey ci ak jigéen ñi si mbirumu soli social maanaam solidarité ak ni ñuy dimbalante ak nan la ñuy jigéen ñi nan la ñuy jëm ba nga xamante ne dañu mënal seen koom. wata euh, jotaayu tey li ko indi mooy li ko sabab mooy dafa fekk ci wàccaayu màggal bi at bu ne groupement yi nga xam ne dañuy jokkoo ci ñun ñëpp dañuy def lu ñuy wax. Euh, euh, coopérative solidarité maanaam dañuy boole seen alal ñu liggéey pour que ku ci nekk la nga xam ne soxla nga ko ci màggal gi nga yombalal la ko mu yegg ci yow nga ci weer yi di ñëw ci teeyu kenn ci ndànk-ndànk nga fay ko te kenn nga xamante ne doo ci mën a gaañ sa bopp ku ci nekk mën a la rafetal sa màggal naatal ko te doo gaañ sa bopp loolu moo tax euh, année bu ne Euh, chaque defe naa bi mooy quatrième ou cinquième année chaque année dañuy organiser jigéen ñi liggéey ak euh, grossiste yi faciliter jigéen ñi accès ci maanaam ñu jot ci li nga xamante ne la soxla ci seen màggal muy soble di yeneen ak yeneen ak ay boisson ak yeneen ak ndox ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne diwlin ak yeneen yi ñu soxla ñu yombalal leen ko ba ñu yegsi ci ñoom ñoom it ñu su lii weesoo ñoom ñu mën ko fayaat ci tey ji kenn ba pare tamit am ci loo xamante ne day des ci seen gafaka pour li nga xam ne dañ koy mën a liggéeyee ci looloo tax euh, tey bés bi tey muy tey mooy bésu lancement bu ñu war a joxe mbir mi lancement boobu ñu war a joxe mbir mi nii moom moo ñu indi moo sabab suñu taxawaay tey. waaw ñun li ñu ci jublu yëpp moom mooy nu ñuy def ba dimbali jigéen ñi yàlla dafa def léegi mu def euh, ñaar fukki at ak lu teg ñun ñu ngi fii Touba. di fi liggéey man may gynécologue di liggéey fii ci soo ko xoolee ñun ñooy njëkk gynécologue boo xam ne moo nekk Touba fii balaa boobu hôpital sax amagul gynécologue ñun tam yàlla def ñun tam ñooy clinique bu njëkk ubbeeku fii tey jii mooy clinique ñaari étage yàlla def kon ya euh, sëñ Saaliwu ñaanaloon ñu ñun ñu ne nit ki tam su fekkee da nga am teraanga fen da ngay seet nooy def ba ñooñu nga xam ne danga nga séqal noo leen di jàppale ci loolu la ñuy dox ñu gis ne que boobu ñu ngi liggéey cees ci yeneen i anam ñu gis ne mais su fekkee loolu ñu ngi koy def cees te man yàlla def na man cees ak Touba mooy sama ñaari keno benn bi mooy Thiès benn mooy Touba xel nanguwul may dimbali jigéenu Thiès yi fàtte jigéenu Touba ci noonu la ñu doxalee ma woo ñaar ñoo xamante ne ñi ngi woon Thiès doon ma fa doon jàppale ci même façon liggéey bi. ma ne leen damaa bëgg ngeen bàyyi ñëw laxasaayu ñëw liggéey si yàlla yombalal ma ko ndax dafa fekk ñoom ñu nekkoon ay taalibe ñoom it ñu daal di ne ma loo ñu woo ci sëñ Tuubaa ñun kenn duñu ci jiitu moo mbir moo indi lii kii mooy El Hadj ji mi toog ak Bousso sekk mi nekk fii sama ginnaaw noonu lañu ñu bàyyee laxasaayu ñëw du dërëm nag bu ñu leen fay du lenn luñ leen jox lu dul bëgg jàppale sañ Tuubaa ak jigéen Tuubaa looloo leen indi ci lii ñu ciy dox amuñu ci guddi amuñu ci bëccëg ba yàlla defal leen ci macha allah lii muy ndam yoo xamante ne ndax tey jii lim bi ñuy yor ci ay groupement jigéen su ñoom suñ ko jotee dinañ lañ ko leeralal mais lim bi macha allah bés bu ne dafay yokk jigéen ñi nga xamante ne bu njëkk ba mësuñoo gis li gën a tuuti ci koom boo xam ne ñoom ñoo ko moom lu dul liñ leen di yónnee wala bés tey jii dinañ dem ba nga xamante ne suñuy toj ah, seen i euh, kees dinañ am ay cinq millions ñii di am ay sept millions ñii di am ay huit millions muy loo xamante ne kenn mësu ko ci ñoom xalaat wala gis sa xaalis bu ni mel jege la kon loolu lépp di ay jéego yoo xam ne dañ ko teg muy jéego yoo xam ne dañ ci yokk tamit solidarité muy dimbalante dimbalante boobu tamit dafay dem ba nga xamante ne dimbalante seen biir koo xam ne am nga problème loo xamante ne kenn su doon dé daaw wala beneen di nga gis dooy dem ci kër jàmbur di ko leb wala yooyu muy indi la coow ñu xamal la te duñ la fajal léegi ñoom luy seeni problème ñoom dinañ ko mën a fajal seen bopp yemuñ ci seen solidarité seen biir mais solidarité bi dafa dem ba nga xam ne dafa dem ci laal askan wi soo gisee ci mbiru Covid bi nga xam ne mooy mbas mi nga xam ne moo fi ne amul lu ñu deful ci ay eau ci ay saabu parce que ñun yooyu dañ leen ci defal ay formation parce que lii nga gis ni du loolu rek lañu yem dañu yem tam ci ay formation formé leen ci defar saabu defar boobu yàlla xam na ne xalaatuñu woon sax ne mbas dina am ñu defal leen ci moo taxit ba mbas bi amee ñu ne nag tombe indi ay gaaf kon jóg leen li nga xam ne dañ leen ko jàngaloon ngeen delloo ko askan wi ci loolu la ñu defaree ay saabu defar ay eau de di yóbbu ko ci daara yi yóbbu ko ci ñi nga xam ne ñooy néew ci doole yi ñoom it seen bopp ñu jël ko di ko jëfandikoo ci seen i kër loolu mu nga xamante ne tamit muy lu am solo te tamit dañoo gis ne ci biir mbaas bi dañoo woo tamit parce que yàlla dafa def ñu bare ci groupement yi ñi ngi koy ñi koy jiiteeg yu bare ci ñoom ay bàjjanu gox la yëpp yàlla moo ko tombeloo ñu bare ci ñoom ay bàjjanu gox la tey jii bàjjanu gox yi nekk ci euh, Touba yu bare dañuy ñi ngi ci ci suñu groupement yi lañ bokk ñooñu tamit di waxtaan ak jigéen ñi ci biir euh, groupement yi di leen yee ci euh, euh, li nga xamante ne lu ñuy wax mesure barrière yi ñuy war a moytoo fàggandikoo ba nga xamante ne feebar bi du law loolu muy macha allah lu ay liggéey bu yaatu boo xam ne ñu ngi leen ci gërëm di leen sant di leen tamit ñaax tamit toujours ñu gónne gën cee continuer ndax mbir mi jógee fii loolu moom moom mooy li ñu gën a tax a jóg mooy nu ñuy def ba boole jigéen ñi ba ñu am koom. mënal seen bopp ndax ku mënal jigéen su mënalee boppam genn wàllu kër gi lu ëpp genn wàllu kër gi sax dox na ndaxte tey jigéen li mu yor yëpp balaa mu koy def feneen këram la koy jëkk def ndaxte su yeewoo moom mooy jàkkaarloo xale yi xam nga yow ku góor su la neexee mën nga xëy daal di dem balaa ngaa gee dellu si guddi wala yooyu mais ki yeewu jàkkaarloo xale yi kooku mënul te yor dara ba pare bañ leen ko jox kooku xel nangu ko moom moo tax ñun ñuy gis ne te ñoo gën a ñàkk ci askan wi te ñoo gën a soxla am ndaxte ñoom li ñuy am mooy delluwaat ci kër gi ci ñun looloo tax ñu organiser leen ci lii am na ay projet yu bare tey ji dafa gàtt waxtaan bi mënuñ koo yaata mi am na ñoo ñoom yeneen i projet yu gën a yaatu am na ay formation yoo xam ne def nañ ko soo leen diggoon ci biir am na fi dañ fay defar ay euh, cere dañ fiy defar ay ah, ñoo ngi jéggalu problème mu machine moo demee noonu ñu ngi koy jéggalu bu baax a baax ndax léeg-léeg courant danaan tic tac ah, moo waral machine yi am jafe-jafe ñu dellusiwaat ba tey ci ci ci accès yi maam soo accès di di liggéey ngeen di jàppale jigéen ci naka la ñuy yaxanale ba banque yi di leen xaalis boobu ngi leen di dajale ñoom yéen fan ngeen koy dugal. xaalis bi ñu ak ñoom di leen yaxanalal ñoom ak say présidente ak bu ñu fal bu ñu la falee nag yow yaay présidente bi yow yaay seere sa kees ñun bu ñu ñëwee du ñu laal xaalis. du ñu jegee xaalis suñuy papier la ñuy yor ñëw toog wante nag yàlla may nañu loo xam ne nii def formation yoo xam ne nii kees gi moom nit munu cee def dara loo xam ne ump nañu. Mm-hmm. loolu tamit yàlla dimbali ñu ci ñu def formation bi yàlla jàppale ñu tamit. te ki ñu ko defal tamit mooy docteur Pape Amadou Ndiaye avant ñu indi Touba moom moo ñu formé. Mhm. formé ñu ba ñu xam lan mooy développement lan mooy accès ak na lañ ci war a taxawee ak nan lañ ci war a doxalee ñu am tamit suñu règlement intérieur loo xam ne nii dafa am lu ñuy bañ am lu bëgg. Mhm. li ñuy bañ tamit bu ñëwee rek nga koy leeral mu la suñuy sart ne la ñun nii la ñuy. lan ak lan ngeen di bañ ak li ngeen di bëgg pour askan xam ko ñun li ñuy bañ mooy tey jii présidente accès bi doo yor caabi ki nga xam ne nii mooy secrétaire bi bigéem ak fooyam lay yor ki nga xam ne ni mooy nangu encaissement yi bu paree day wëññi ba mu leer ci kanamu mbooloo mépp ñu door a bind dugal si biir kees gi bu ñu dugalee si biir kees googu nag bu ñu demee ba yenn moment yi nga xam ne nii yenn temps yi ñu leer nañu ni kees gi te xaw na sakkan tuuti dañuy jël loolu en même temps bu ñu ko jëlee dem yóbbu ko fi nga xa am fu ñu ko teg foo xam ne nii heure bu ñu soxlaa seen xaalis ñoom dañ koy ñëw jël ci anam bu rafet nga xam ne bu boobaa dërëm du fukk dërëm du génn fu kees gi toll dañ koy xam ndax dafa nekk loo xam dañ koy saytu ñoo leen di crédit ñoo leen di topp di leen euh, buñ accès ñeenti accès juróomeel ba dañuy ñëw defal leen crédit crédit boobu tamit ñun ñoo leen di topp kenn ku nekk la sa carnet moom moo la concerné kon loolu yaakaar naa coow du ci am organisé foofu la yem. Hmm. Ah, ñu jëw ci tànn gaas yow nga nga nga nga bokk yor macha allah accès hmm. euh, ndax li soxna maam bu sa wax yow bi nga duggee résultat boobu yaa ngi macha am na ko ne ci bu mu jokkoo ñu jël ko moo ko sax salaamaaleykum. salaamaaleykum. maaleykum salaam. delloo ziyaara nu tudd ak foo ñuy woowee. soxna Fallou Touba Darou Khoudoss. soxna Fallou bisimilah yow la ñuy déglu. Ah? ma ne yow rek la déglu soxna Fallou. waaw maa ngi kontaan bu baax ci dalal bi ngeen dalal soxna Mame Bousso. ci kees atte. ci Paa Amadou Ndiaye. Mm-hmm. ndax ñun jigéeni Tuubaa. Mm-hmm. moo ñu tàggaleeg baal ko yi. Mm-hmm. moo ñu tàggaleeg euh, wala kaana. ndax ñun dañuy développement. Paa Amadou Ndiaye rek ñëw encadré jigéen ñi. wax dëgg yàlla soxna euh, maam bu set yàqu ci dara. jërëjëf ah. jigéen ñi ñu teg Tuubaa yàqu ñu ci dara. ndax tey bu ñu amee ay millions. balaa maam bu la fekk ñoom moo tax. Mhm. te am nañu yar am nañuy teggin. Mhm. te wax dëgg yàlla bu màggalu Touba ñëwee. Mhm. ñun léegi Touba jaaxle tuñ dara. da nga ca mën a am loo tere la naa ngi kontaan ci dalal bi ngeen ko dalal. di leen sant di leen gërëm. yéen ñi ko dalal yëpp fa leen bëgg a yegg yàlla li fa sëriñ Tuubaa amin ñu bokk amin amin amin waaw kontaan naa bu baax nag kontaan bu baax ci dalal bi mhm. waa bi nga fàttali ñu ko soxna Fatou Lo Touba Darou Khoudoss soxna Fatou Lo ñu ngi lay jaajëfal bu baax waaw mhm. jërëjëf kontaan nañu jërëjëf soxna ah, mm-hmm, Fatou Lo. la Daara Khoudoss. Mm-hmm. macha allah. mu mm-hmm. nekk moom tamit femme bu dynamique. bu yàgg ci développement. waaye tey macha allah moom tamit ndam yi ci Touba yëpp loxo mu ci biir. waaw ndax nit moom boo dëggoo rek mën ngaa am lu ne. Euh, heure bu demee keesam rek ñun dañuy am contentement. macha allah muy femme bu baax femme bu jàmbaare. koo xam ne nii bëggoon na ku ko jàppale. wante tamit dañ ko fekk ci yoonam muy dem ñu teg ko loxo rek macha allah mi ngi àgg fi mu bëgg a àgg. Ah, tàngaas uh, ñu toll woon foofu yow nga gis ci njariñ sa hmm. mbooloo. ah njariñ li mooy dañoo fekkoon ñu daan yaxantu a jekk. Hmm. yoo xam nga ci dara. Hmm. daan boole suñuy dërëm ak suñuy daqaar. yàlla dogal doxee ba ñëw ci ñun. ah jaare ci loxo maabus ak jéey ñëw ci ñun. di ñu topp di ñu saytu. li waxit muy lu wér. amut caaxaan amut ay tappale. kees gi moom ñaar fukki dërëm yi gën a tuuti wala fukki dërëm saa yi ci manqué bu ñu réglé day feeñ ñu di la topp nag di la saytu di la jàngal li ngay defee xëy na donte doon nga ko def mais formation dafa baax ci doomu aadama ndax looy mën a def te amoo formation loolu lu baax kon yaakaar naa ni ñun kees gi daf ñoo formé ndax formé na nañ ñu denc suñu xaalis mhm. formé nañ ñu naka la ñuy lebee suñu xaalis mhm. naka lañ koy delloowee mhm. bagage yi ñu am ca plateforme boobu naka lañ ciy jënd naka lañ ciy jaayee loolu lépp kees jàngal nañu ñu continuer ci loolu wax dëgg yàlla tànke wuñ dara lépp nga fa macha allah lu jigéen di soxlawoo ci biir këram ma nga fa sëñ Bass nga affiché numéro téléphone bi 247 0059 ci ngay jaar ci bu mu jokkoo gi 247 0059 ci ngay jaar dugg ci Waarwi TV ñu fas yéene fee dalal waa accès ah, tàngaas muy muy lu am solo loo xam ne même ñoom da leen di jaay fo jox ay bagage ngeen di jaay wala yéen naka lay demee noonu ndax damay gis ba ma fa daan ñëw ak yi fi mujjee ñëw daa mel ni fi mu doon moom yéen a ngi sant. waaw sant gi mooy xam nga jigéen day dëkk bi neexul te góor ñi ñun jigéen ñi ñoo ci jàpp ci kër yi mhm. yow nga doon jigéen nag ñu indil la pomme de terre indil la soble mhm. indil la dëwlin indil la poobar indil la laaj ak lépp loo xam moom ngay jëfandikoo sa biir waaj te it ku ne xam na mbir mi ni mu demee mhm. jëm ñi ciy wax junj doy na borom moom xel jigéen ji mën a am loolu dugal ko ci biirum néegam di ko jël di ko yokkee dépense am di ci jëfandiku ci biir waañam su weeru deewee nga dem fay ko ñu indi leneen nga dem jël. Mhm. bénéfice ja ca am nga jël ko dugal sa biir kees. Mhm. mu yokk la. Mhm. loolu moom képp ku la ko defee rek ndimbal la. wax dëgg yàlla may ñu ñu ndawal dañ ñoo euh, ci am na koy jéem a dugg ci ligne bi mais ñu ngi koy xaar 247 0059 ci nga jaar dugg ci bu mu jokkoo ñi ministre ki def ma envoyé message ne ma nga leer na Pape Amadou Ndiaye ministre bi lan la. waaw euh, moom ñu ngi ko jox artisanal. artisanal mooy ñi nga xam ne tey jii matière yu bari daf ci nekk. Mhm. parce que matière yi ci nekk moo bari li mu tënk moo bari. Mhm. ndax tey ki nga xam ne nii dafa toog ci biir këram. Mhm. yor njàmpeem di ràbb rek ci artisanal la bokk. daa am ku ne ci buumu jokkoo gi ñu jël ko wala continuer. salaamaaleykum. salaam. ñu ngi leen nuyu baax di la ziyaare. ñu ngi sant bu baax sëñ bi. noo tudd ak foo ñu wooye maa ngi tudd waaw sëñ Boubacar bisimilah yaa ngi ci waar wi TV maa ngi leen di TV mm-hmm. di rafetlu seen liggéey mm-hmm. waaye du mm-hmm. soxna soosu soxna bu ñu lay fay bu baax busoo mu nga xam sëriñ Tuubaa busoo mu nga moom moo dëkk su ko def waa laxataayu bi liggéey waa Touba liggéey Sëriñ Touba moo mm-hmm. te tey su fekkee dañuy wax ci waa diggante biir réew mm-hmm. war na ñaa taxawaayu yi nga xamante ne ci biir kenn ak mm-hmm. Sénégal soxna si kooku di ak jigéenu Touba yi ñoo ngi laxu saa yu ñu def extraordinaire ci biir réew mhm. ndax chaque fois dañu am lépp ñu ngi jël mhm. ak foo ko mënta gisee mhm. waaye Touba dañ lay jël wax nga dëgg de ñoom nag ñu laxa saay ubbi ay kees yu ñu tuddee acte depuis lu ko cinq ans ñu tëj seen kër yi bàyyi seen njaboot ngir lan ngir ngir saa soppandiku. Mm-hmm. ñoom xamoon nañu liggéey boobu ñu tëj seen tubaab fan yii ñaaw. dëgg la. ndax seen tubaab ku liggéey ñu fay. laaxi. liggéey boobu nag ñu doon liggéeyal seen tubaab. Mm-hmm. ànd ko élargi ak seen bu nga xamante ne dañu am docteur mm-hmm. ci biir docteur bi mu nekk ak PTA. ba yàlla dogal tey jii ministre bi mu nekk nii mu nekk ministre bu nga xamante ne tey jii artisanat ak le petit moyen entreprise. Mhm. kon sëñ Touba rek lañ def. laay moo mat a lebal. kon tey jii. Mhm. na jigéen ñëpp teg. Mhm. askan bi ñëpp teg. ñu wàcc si la téeméer liggéey bokk na bokk naaj. may sunu réew bi ndax mooy réew suñu Sénégal bi ndax tey jii kër Touba. jigéenu ak say benn ñoom la ñu seen njaboot ak seen tuuba. wallaahi. jigéen boo ci def ubbi tey jii armoire doo ko fekk mu ko jigéen bu nga xamante ne tey jii am na am na am na am na ay orateur wala mu am ay yore yu rafet. Mm-hmm. lépp lu ñu am lu ko def adiya lépp lu ñu am ay ay jël digle def. Uh-huh. kon donc loolu su fekkee am na. Mm-hmm. man bu fekkee tey. Mm-hmm. kon danaa gën di sama kër yi dugg ci télé bi nga xamante ne émission bi nga xamante ne am na solo ci biir réew mi am na ci biir réew mi pour tegalee leen ne Bousso Diambar la moom daal. jërëjëf jërëjëf ci li ñuy jàppale. kenn kenn keesu ak tey. Mm-hmm. parce que loo gis rek am na ko jiite. Mm-hmm. te Touba lu ko ñun ñu nekk ko. mooy que ne jigéen ñi dafa fas seen jigéen rek ngir jaalante ak seen Touba. Mm-hmm. te nit ki amoon na su fekkee xam nga lu dul fi réew. dëgg mhm. waxal ca kaw. sunu géej sunu sunu corak gi ak sunu ndaw. Mhm. nañu xool ci puso ak keneen mhm. jee ba ay tuuti dara.

kontaan naa koy fay bu baax a baax. askanu Sénégal jërëjëf Boubacar Diarra. jërëjëf. yàgg nga ma fekk rajo may ànd ñoom nga may woo kon boo ma te woowee tey xam naa ne yàgg nga ñoom. jërëjëf. ñu ngi ñaanal sunu ministre nag yàlla jàppale ko te ni mu doon gëstoo Touba mu gën ko yokk parce que artisanat tubaa soxla na ndimbal. te ñëpp am ci moom te ñëpp am ci moom yaakaar.

jërëjëf jaara jërëjëf. jërëjëf jaara jërëjëf. kay sëñ Tuubaa di remercier Boubacar Diarra ak sunu ministre boo mu toogal Pape Amadou jaay mhm. ndax kii dimbale ni te doonu ko dara bu doonee dara kon dana la dimbale. ndax propre moyen la ñu doon dimbale daal ma fekk rajo di mu saa mu leen invité rajo bu may woo naan ma jàppal te bàyyi. Mhm. kon maa koy jaajëfal bu baax nga gën a leeralal foofu nag ñu dëkk ci Tann ministre bi euh, fonction bu mu yor lan ak lan la. waaw fonction bi mu yor mooy comme li ma la wax dama ne la euh, ci artisanal laa njëkkee. Mhm. ndax artisanal tey ki nga xam ne day ràbbu njàmpi sax bu mu xeeb boppam mhm. ndax mi ngi ci artisanal mhm. ndax tey jii mooy dafa fekk ay buum caas yoo xam ne kenn mënu ko woon a taqale mu taqale ko tey ba ba ba nit ki mën ko jariñoon kon loolu dèjà euh, yow yaa ngi ci aar bi ki nga xam ne nii day ñaw tamit yow tamit yaa ngi ci aar bi macha allah mhm. loolu moo waral ba tey ji ñun ministère duñ ko jox tiituñu ci mhm. ndax euh, li nga li xam ne moom la moom la ñëpp tënk mhm. moo tënk ñëpp moom moo ko tënk comme nag moom li tënk ñëpp moom moo ko tënk te moom li mu yor askan bi la ko bëgg a delloo sénégal yi la ko bëgg a delloo kon damay ñaan am na ko ne ci bu mu jokkoo ñu jël ko salaamaaleykum mbokk bisimilah allo salaamaaleykum allo waaw ngi lay nuyu de ah kooku sama xarit la sëñ El maa ngi lay nuyu de di la ziare waaw fii la benn yoon ñu ngi sant bu baax. waaw maam soxna maam Diarra ñu ngi lay remercier fois de plus. ah ñoo ko bokk. ci invitation boobu nga invité suñu coordonnatrice boobu di Mame Bousso Seck. Mm-hmm. ak soxna Koudia Diop moomu suñu Abdou Lahad. Mm-hmm. nga xam ni présidente accès la femme de développement la. waa mm-hmm. allah gox la macha Mm-hmm. waaw ku dégg kàddu gi rek xam ni mate mate mate nañu mate nañu toogaay bi. Mm-hmm. waaw Boubacar Diallo nag dégg nañu dégg nañu wax ji. Mm-hmm. xanaa dañ dañ ciy yokk rek. dëgg la. Euh, sëñ Touba moom euh, defe naa loolu yàgg yow moom yàgg nga koo wax. ne ma ne ma docteur Ndiaye sax li muy liggéey Touba yéen feneen kornante visible ñu ne de ñun de say da ngeen ñoo bàyyi ci terrain bi rek ñuy liggéey ñuy liggéey mhm. ndax am na liggéey boo xam ne moom du koy liggéey rek mu mu mu la koy wane boppam dëgg la te te acte yi defe naa ne ñoo ñoo ñoo wane seen bopp dëgg la waaw ñoo ñëw di jàppale askan wi ci mhm. nan la ñuy dencee xaalis nan lañ koy nan lañ koy yaxantoo ñu leen di wan lan mooy gestion financière mhm. amay xaalis yoo xam ne sax day kawe si ñun ñi nga xam ni ñoo leen di encadré ñu koy ñu koy def partage di ko yaatal ba tey ji jigéenu Touba yi defe naa ñu bëree bëri ñu yor accès. Mhm. foofu loolu loolu yaa xuddal mhm. bu baax ci opportunité bi ngeen opportunité bi ngeen ñu may tey ji ñu mën koo yaatal. Mhm. ah bu bu génn jé jé ñu laaj la tuuti yan projet ngeen yor à Touba. comme léegi yàlla suturaal la da ngeen te yàlla yan projet ngeen yor fii jigéen Touba yi leen doon gunge bu yàgg ba léegi. allo allo dégguma question bi. ma ne yan projet ngeen di defal jigéeni Touba yi leen doon gunge bu yàgg ba léegi. waaw xam nga docteur bi ñu ñëwee dafa taxawal benn plateforme bi presque plateforme multifonctionnelle la. Mhm. plateforme boo xam ne jigéen tey ji mën na saa dugal dox mën na saa dugal dugub su ko jëndee mu nekk produit yi nekk sangal wala cere wala caagri. Mhm. dugub euh, indi fi tamit lu ñuy wax ay tigé-dégé mën nga ko fee boo sa gerte mën nga def tigé-dégé. ainsi de suite plateforme bi mën nga fay demee indi sa café saaf ko emballé ko def sa étiquette jaay ko. Mm-hmm. defe naa man mii di ay di wax ak yow fa laay àddoo nii. Mm-hmm. ñu fay ba pare mu nekk en même temps centre de formation boo xam ni. Mm-hmm. ci lañ doon formé jigéen ñi lu mel ni ay savonnerie. fruits et légumes. Euh, sérigraphie. lépp lépp luy euh, formation bu xam jigéen dina ko soxla daal. tàmbali tàmbali woon euh, tàmbali woon nañu loolu defe naa jigéen Touba ñu bari tey jii. soo leen laajee seen diplôme de formation ñu wan la ko te fii la fii la leen formé nii. Hmm. waaw di hmm. waaw di remercier tamit le le chef de service développement communautaire. Hmm. monsieur Thiendella Fall nga xam ne mooy daan encadré si côté boobu. waaw di diplôme a jàllale. nga xam ne travail bi ñu doon def état bi tamit état baa ñu doon jàppale. waaw à travers service décentralisé yi nekk dëkk bi yëpp. waaw kon daal ñu ngi remercier à travers votre médium toute la mhm. presse locale. Mhm. ak di di remercier nag waa Touba. di ñaanal suñu xalifa bi yàlla yàggal ko fi lool Mountakha Bachir. amiin amiin mu yàgg lool te mu ànd ak wér. amiin amiin waaw. waaw foofu daal lañu bëggoon a wàcce kàddu gi. di bàyyi ñoom maam Moussa ñoom mate mate nañ ko li ci war a wax lépp dinañ ko wax. jërëjëf. ah di di la jaajëfal yow moom nit ku baax nga. <laughs> yow yow yow Dieye nit ku baax nga ndax ki nga yàgg liggéeyal booba egsi wuñ fii ba yàlla dogal ñuy avancé ba koroog bi ñu toogee di sarkal sargal presse bi leen doon gunge da leen neex rek ñu koy def ndax ñun suñu liggéey lan doon def comme mun demee ba kuréel gu toll ni accès di ñu sargal ànd ci ak euh, docteur Ndiaye kon ak maam Bousso bi ndax bu leen neexutoon loolu du am loolu moom vraiment nekk na loo xam ne presse bi fi nekkoon yépp la sedd seen xol ñu ñu sargal ma ko nag en tant que rajo Benno FM ndax euh, rajo Benno fu ma yegg tey rek saa su ne fu ma toog dama koy wax dafay remercier rajo benn ak euh, sëñ Mortal Fall mi nga xam ne mooy ko jiite dénkoon ñu liggéey bu am solo boobu ñu doon ko ànd ak groupement yi association yi kon accès bu ñu sargaalee dara jaglee ko rajo ñu amee ko ca rajo ba suñ toogee Waarwi TV tamit te ni xam ne luñ am rek ci rajo la déggee ba mën a egsi fii tey tan gas ñu dikk ci après na dikk ci plateforme boobu yow Mame Bousso euh, ni ngeen di yaxanale ba tey jii sa kees fan la macha allah sant rek xëy bi moom laal nañu baree bari ren. Mhm. waaye teewul am nañu ay millions. kenn ku ne jël nga sa xaalis ñu tax ca dolli maam Boussa bi ñu déparé. Mhm. muy daaw bi année bii année daaw bi ñu génn nii. Mhm. maam Boussa ni comme accès ay famille ngeen ndax accès nekkatul ñoo xam ne ay ñu ndox di dajale ñun famille lañu. ndax li tax ñu doon famille mooy docteur Ndiaye dafa defar kër tudde ko plateforme bi. yóbbu fa ay machine yóbbu fa lépp loo bëgg a def jéey wax na ko mën nga ko faa defee mhm. suñu dee jëlee ndugg fa lañ koy jëlee lépp fa lañ koy defee mu ne accès yi comme ñaar fukk ñaar fukk yooyu ngeen di dajale bokk leen ko ngeen def benn natt mhm. natt boobu bi mu déparé ñu ngi koy natt loxo bu ne ñaari junni mhm. ku ko teggi defe naa di nga am trois cent soixante quinze mille moom ngay am ci cent franc cent franc nga koy jëlee du téeméer. Mm-hmm. ñaar fukk ñaar yooyu. ci ngay am loolu. Mm-hmm. kon soo teggee sa loxo natt boobu. Mm-hmm. man koo dem liggéey ak sa waa kër. bu boobaa xaalis bi ngay natt sax dootoo ko laal si ndax dootoo ko soxla. ñun loolu la ñuy yëngoo ci sunu kees. yàlla dogal na nag ñu bari sotti nañ. li ci des it bareetul. waaye daal li ma la mën a xamal daal. mooy Pape Amadou Ndiaye. maaleykum salaam. maaleykum salaam. ah ñu ngi lay ziar soxna si. delloo ziar rek noo tudd ak ah Sidibé ñu ngi lay ziar talaala bisimilah ci Waarwi TV. ñu ngi lay ziar bu baax di ziar mhm. li nga xam ni dugg na ci Adja Bousso yor ko muy ak tey mhm. koo ful mhm. di wax ni ba mu commencé ci ak tey na waaw waaw ah, parce man maa yore bàjjan gox yi kenn mhm. ak waa Ngaay waa Tiwaawan ak waa Kuure di wax ni vraiment liggéey bi yàgg def moom vraiment ci léegi gis seen bopp. waaw di transformer femmes mm-hmm. yi. ci céréale locale bi. Mm-hmm. ba nga xam ni ëllëg bu leen joxee financement danañ ci mën a dem di liggéey seen bopp di ci jariñu. Mm-hmm. di ci am source de revenu parce que loolu rek moo doon euh, ak euh, loolu moo doon bëgg-bëggul docteur Pape Amadou Ndiaye. waaw ci wàllu ak tey. dëgg la. di wax ni Adja Bousso moom ci wàllu boppam. waaw. ak Alaaji Dieng. waaw. man vraiment aw ma seen fay ak Mor Faye. Mm-hmm. parce que lañ liggéey ci acte Touba. dëgg la. ñëpp rafetlu nañ ko. Mm-hmm. di ñaan yàlla ndam bi nga li nga xam ni président de la république monsieur Macky Sall euh, jox nañu ko. Mm-hmm. waaw ñoo ngi ñaan yàlla ñu ñaan woyof. ba ah. ëllëg boo gis ci satisfaction président. amiin amiin ñu bokk amiin amiin. te te vraiment ñoo ngi ci kaw ñoo ngi ci def ñu mën di ñaan yàlla di ñaan ci barke xalifa ba fa nekk. Mhm. lépp lu ñu am rek ñu muurloo ko ak bépp mbooloom jil. amiin amiin amiin amiin. waaw di leen dëkk benn mbir rek. waaw. yoo xam ne Adja nekk ak El Hadj Mor. waaw. damaa bëgg waa Touba gën leen jàpp. Mhm. xam ni lii musul am Touba ñëw na fa. Mhm. vraiment waa Touba gis nañ ci seen bopp. Mhm. dañuy bëgg mu gën a ci suñu borom gën koo ful ba ku nekk gis ci sa bopp. Mhm. nga xam ne ëllëg bi nga mën a jàppale sa njaboot. dëgg la. voilà di ñaan yàlla. Bousso na fa nekk ak El Hadj ak Mor. yàlla leen yàlla defal jàmm ba liggéey bi yan bi woyof lool. amiin amiin amiin asalaamaaleykum jaajëfal bu baax a baax. Mm. ñu ñu ci boo daan dem di ko fay ci plateforme ba ngay liggéey ko. da mhm. ngay sa ah, mhm. ah, bi daa mel génnoo ligne bi de. allo oui salaamaaleykum maaleykum salaam waaw noo tudd ak foo ñu woowe